rahmatullah ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di baalu ak ñu ngi baal ñëpp ak di ñaan yàlla muy toppante ak suñu biir mu boole ñu jéggal xam naa di nuyu di sargal ki nga xamante ni moo fi teewal monsieur le gouverneur monsieur le préfet ak monsieur le maire di jël nuyoo bi rek tax ko ci loxo suñu sëriñ sëriñ askan ji mu jàllale ko ci mbooloo mi fi teew ñëpp xam naa comme ni ko ñëpp waxee rek moom bu fi teewee bu ko tuddee rek mel na ni tudd nañ ndax ñu fi teew ñëpp ñun ay taalibe lañ donc ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo fi teew ñëpp xam naa du ñu dellusiwaat ci importance su jataay bi ak importance organisation bi parce que ñëpp wax nañ ko te ñu fi teew ñëpp xam nañ ndax lii xëy na ñun bi ñu ko xamee léegi yàggul mais bi ñu ko xamee ba tey dañ ko rafetlu bu baax a baax a baax man nag bi ma ñëwee Grand Diourbel yàggul waaye la daloon sëriñ Babacar si dama dal da daan wax ndar gi ma juddoo Louga gi ma dëkk waaye Tiwaawoon gi ma ne moo ma dal man man mën naa ni kër Cheikh gii ma juddoo ndax kër Cheikh laa juddoo ñëpp xam nañ ñu fa waaye nag Ndoumbé Diop laa dëkk ndax foofu laa màgge fa laa jànge fa laa liggéeye waaye yàlla ci kàttanam ak mbaax kilifa mu may ma dëkkuwaay ma ñëw nekk fii ci Grand Diourbel keroog ba ma fay jógee di ñëw sama yaay dane ma jàppal ni ñun nekkatuñu say mbokk foofu nga dëkk say dëkkandoo yooyu ñooy say mbokk ndax bu la dara ne ku ñun bala ñoo agsi ñoom ñooy njëkk a ñëw kon nag loo mën ci yëg leen loo mën ci fonk leen loo mën ci defal leen def ko loolu yaakaar naa xëy na jot ga kàttan ga mu nekk waaye ñu ngi koy jéem kémtalaay lu ñu mën sant yàlla bi nag mooy xëy na man bu ma defut lu ma war tamit ñoom Grand Diourbel gii ma nekk jàppe nañ ma ñoom ci seen bopp ni ñu toll ñoom ndax amut lu ñuy yëkkati lu ñuy def te waaxuñu ba sama kër waxtaan ci ak man dama mën a dox lool waaye buñ ma fa fekkul ñu yëkkati téléphone wooma wala ñu ñëw ba sama bureau toog waxtaan ak man moo tax euh, xaadim ak ñi nga àndal ñëpp ci mine de rien plus de 300 personnes ñi nga àndal ci mine de rien association bi concept projet tous pour un li ngeen di def lépp rafet na ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na ko borom bi saxal yàlla na mag ba àgg fu sut seen njort parce que xam naa ni li nga ko waxee ngëm-ngëm ak yitte rek moo am solo te def ngeen ci seen yitte nii ma gis ngeen koy defee nii def ngeen ci seen yitte bu baax a baax a baax comme ni ñu koy waxee jamono léegi dafa xat sama caat mais sax léeg-léeg dama koy woo mu naan ma maa ngi ñëw ma xam ne dafa nekk ci yitte sagam ñoom tout tànk yi ñooy ne ci ay yitte yoo xamante ne ni da nga leen di woo du leen di asamalantoog nit ñi mais yéen ngeen jël seen yitte yooyu yëpp teg ko nekk ci yittey lii comme ni ñu ko waxee rek xëy na euh, lu lu yàlla baaxal la kon nag dañuy ñaan yàlla na ko yàlla yaatal yàlla saxal ko ndax euh, euh, li ñuy wax bu ñu nee concept projet tous pour un bu ñu nee tous dañuy tudd ñëpp muy Grand Diourbel un merci may comme yàlla dogal nañu installé monsieur ba pare ñu bàyyi madame mu continuer en attendant merci madame Diouf. jërëjëf maam Góor xam naa dañuy daaneel rek monsieur le maire ñu ngi lay nuyu dalal di la sa wàccuwaay euh, euh, kon damay daaneel rek may mun a comme mu ngi naaj te wax dëgg yàlla discours yi des na donc loolu lañu amoon lu ñu ci wax ay na jeexul li li ñuy wax li duuf ci nag bi xajul ci cin li mais ñu ngi leen di ñaanal yéen yi ngeen xamante ni yéen a ci nekk. ak ñi nekk ci association bi yëpp yal na yàlla kattanal leen ba àggale seen yéene ba fi ngeen bëgg association bi àgg mu àgg ñun nag dañ leen wax ñun ak mag ñi nekk ci seen ginnaaw yëpp ñu ngi ci seen ginnaaw lu ngeen soxla ni ngeen koy defee fu ngeen ñu woowee fu ngeen ñu fëggee ñu ngi ci seen ginnaaw di leen jàppale di leen ñaanal di leen encouragé te di leen jox suñu xalaat salaamaaleykum wa rahmatullah ange bilahi mina seytaani rajim <coughs> bisimilahi rahmaani rahim maa ngi commencé sant suñu borom julli ci ku <coughs> sallallahu alayhi wa di commencé it di ñaanal ñi fi jóge maa ngi leen di ñaanal yal na suuf sedd seen kaw yal na suñu boroom booy leen ak mbalaakam euh, yërmande ñi fi nekk it may ñaan ñu yàgg fi yàgg gunge euh, di leen wax ni ñun ñu ngi fii c'est la délégation de Euh, c'est la délégation de docteur Aliou Kabara euh, délégation bi nag Jital ngi Fall ak Alpha Diallo ak Manmi. man délégation bi mais double casquette là. euh, di ni association bi dañuy ñaan rek Gunko gën ko Euh, ndax li tax euh, ay xaleel lañu liñ naan ku xamul fi nga jëm doo egg fi nga bëgg ñoom xam nañu fi ñu jëm ndax ay xale lañu jàng nañu bi ñu waree jàng foo nañu bi ñu waree fo lijjanti réew àdduna bi it bi ñu ko waree ñu ngi ciy def donc association bi yemul fii rek fii ñu nekk fii association mi ci diaspora bi association mi si nation sénégalaise bi association bi mi ngi ci Diourbel mi ngi ci quartier Diourbel yëpp foo ci laa am na ay membres yoo xam ne ci association bi lañu bokk donc association bi du association Grand Diourbel rek mine derrière tous pour un mooy ñëpp rek lëkkaloo pour jàppale kenn solidarité mënta weesu loolu mënta weesu loolu ñëpp lëkkaloo jël seen yëpp jàppale benn nit te loolu moo yëkkati association bi di wax ni ay xale yu baax lañu ay xale yu engagé lañu ay xale yu neex a bokkal lañu seen ay loxo set na xale yi ku leen jàppale ñu dem dañ leen war a soutenir war leen appuyer war leen accompagner pour ñu pérenniser seen projet bi te moom ku leen jàppale ñu dem ku leen jàppalewul ñu dem parce que li ñu commencé nii duñ ko bàyyi bi ñu commencé metti woon na torop xaadim wax na ko xaadim la régulateur xaadim la brave Khadim qui est euh, euh, qui qui a formé le groupe parce que du woon dara fii suñ taatu garab yi lañ daan toog léegi muy dem di dem ba yëf yi yaatu yaatu na ba ñëpp bokku ci kon nag du ñu def lu ñaanal reen rek yàlla may leen kattan yàlla jàppale leen ñun itam nekk si ginnaaw di jàpp en dehors de tous les clivages politiques ñëpp jàpp ci parce que sañu ay doom lañu te bëgg mooy rek suqali Jurbel

kon xale yi ñu jar jàppale lañu xale yi ñu jar a gunge lañu docteur Aliou Camara nag moom mooñ fi yabal lii tax moom ci koñ bi dëkk ci la bokk su fi baaxee mu baaxal ko donc moom du bañ def ci dooleem def ci xelam def ci xalaatam te xam ñoom xam nañu loolu association bi xam nañu loolu beneen bi man ma nekk fi seen yaay yàgg na ñu nekk fii di leen jàppale kon xale yi fi ñu jëm yàlla na leen yàlla eggale te na ci ñëpp jàpp nag ñëpp a ci war a jàpp du jur benn rek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 maa ngi jiital si bi monsieur le maire Malik Fall honorable premier magistrat de la ville ñu ngi nuyu également suñu sëriñ sëñ Kànji euh, di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp euh, su ma lumee du ma matal mën naa juum mais di nuyu particulièrement suñu yaay maire Aïda Dia mi nga xamanteni ni xëy na peut-être ñoo xàmme mais di fàttali rek ni ba ma ko gisee sama xol tooy na trop parce que man ak Lamine Silla ak kan mi magu Xaadim lu ne def nañ ko ci këram nga yàgg nañoo may ay njoganal foofu ci këram nga di nuyu également sama cousine eh, madame Aissata Ba mi nga xamanteni mbokk la ci wàlli deret di nuyu mon ami et frère Seydou Diaw eh, Seydou Sow eh, mi sama Rakallah la sama gorom la di nuyu doyen yépp toog fii di sama mag mais également l'assistance euh, man euh, suis parce que je pense que comme une présentation yu y d'abord monsieur le président de la république daf Sénégal directeur général de la jeunesse Je suis gërëm ñun waa Njaareem di sagu waa Grand Diourbel ba fi Xaadim ñëwee di ma wax association bi dama ne ko man man devoir la ak obligation d'abord ma ñëw fi même bu ma dëkkul woon ma yëg xew-xew bi devoir la ma ñëw taxaw fi turu ministère de la jeunesse rawatina nag ma dëkk Diourbel dëkk Grand Diourbel bërëb bi ñu taxaw ma foofi ba tàyyi def fi lu ne nag euh, ñun dañu war a sant yàlla man dama koy wax tout le temps grand Diourbel Diourbel sax laa war a wax euh, musuñu des ginnaaw ci dara xëy na développement dëkk bi doxin bi yéex na mais mu suñu des ginnaaw waa njaareem bool bool musul doon ku yaafus fu ñu ko fekk nit la koo xamante ni kuy lijjanti boppam la en tout cas moo tax euh, association bi lu tax mu neex ma euh, maa ngi beral nuyoo effectivement monsieur le maire maa ngi jéggalu sama xaritu démb yi ma àndal parce que ku ma xam xam ne de tout temps sama ñi ma fooloon saa mu ñëwee njaarim ñoom lay àndal ñu ngi nii ànd ak man nekk ci ginnaaw ñuy ay professeur ñii di ay directeur d'école ñëpp fait que nag japp na ni Jurbel association yu mel ni dañ leen je pense que monsieur le maire c'est un plaidoyer que je fais parce que ñun bokk na ci mission encadrer mais également conseiller les associations de jeunes surtout des associations de développement am na ku ko wax ci sànq naan bay ci say un développement il doit d'abord être endogène avant muy global C'est ce fi nga veux sa gox tant que développé développez, vous yow bo né da ngay développé ne xëy nañ d'accord mais en tout cas mën na yéex que concept bi un concept buñu séduire d'abord de par la démarche mais également de par la philosophie dans les préparatifs parce que yalla dafa dogal man dès le départ dama ne man ci association bi la bokk jarul sax ngeen di def plaidoyer man je suis un membre à part entière yalla def ñu am groupe dugal ma ci groupe bi je suis c'est vrai que je suis pas très actif dans le groupe parce que obligation yi ñoy tax mais limay suivre diko ko gis man xamna ni c'est ça la voie tànn nañ ay nit bëgg def success story te yooyu dafa am solo si ñun jeunesse bi bi nga xam ne moom nañu yàlla booleel à chaque fois ñëpp xam nañ ni tey li gën a lëmb dëkk bi c'est l'immigration irrégulière xëy na dinañ ci ñëwaat bu ñu ko temps bi mayee jàpp nañ ni xale yi gëm nañ ni ñoom réussite mënul am feneen fudul tànk génnuñ alors que tel n'est pas forcément le cas même boo xoolee ba monsieur le maire miy toog lu ne am na ko ci dëkk bi am na ndomba tànk yu ne mais ñun ba ñuy ndaw suivre nañ ko xam nañ ni c'est un self made depuis xandaalu donc nit la ko xam ni ñun on le personnellement te tey ji yàlla def bu doon le premier magistrat de la ville doon maire ci dëkk bi mais également doon député ak yeneen ak yeneen Seydou Sow muy sunu rakk on l'a vu je pense que c'est quelqu'un qu'on suit particulièrement njàng nos collègues, na ko léegi xëy na disa diplôme licence yi mais aujourd'hui il a pu se frayer son chemin def li muy def te genre yi la à chaque fois fu ñu dem ci ay causeries moo tax biñ ma animer ce panel sur l'immigration irrégulière je suis barki à bu barque de jóge ànd ministre

du ñu nga xamante ni xëy na ñu ngi ci ay liggéeyu bureau ñi nga xamante ni ñoo yor seen liggéeyu bopp la di dem ak ko ñëw donc euh, vraiment pour bañ guddal di rafetlu lii di wax ni liñ la boole ak li nga bokk yemul lii dama ci bokk te man jàpp naa ne di def sensibilisation partout ci Sénégal sa dëkk soxla loo jàppoon war nga ko bàyyi mën a ñëw. na nag muy Grand Diourbel Grand Diourbel bi nga xamante ni lépp lu ñu am gannaaw yàlla fii lañ ko amee man damay ni fii peut-être université moo ñu yenn njaareem mais CI ba terminal Diourbel lañ ko def donc Diourbel dëkk la boo xam ne dañ ko xam miin ko te xam ni effectivement xëy na doxin wi yéex na mais ñu ci yoon wax te incha allah jeunes yi ma gis en tout cas détermination bi ma gis euh, sur Euh, en tout cas cette association mine de rien monsieur le maire parce que effectivement c'est parce que je suis membre à part entière de mine de rien c'est pourquoi je le dis encore une fois moi je suis en train de faire mon travail de lobbying euh, en tout cas toutes les personnalités yi de xam Grand ils ont adhéré au concept mhm. ils ont dit que l'imam wax deug yalla li la Jurbel soxla parce que développement bay ci say weewu tànk encore une fois maa ngi remercier ñep ñew ak tangor yep pour euh, vraiment assister ci cérémonie bi nga xam tay ji moy mom la commencer ci liggéey bi mais balaa ma démarrer aussi euh, maa ngi nuyu le conseil messe ñing ndax ma mom ñoo bokk mairie bi kon suma ma fekk mu nekk conseil municipal te ñu bokk ko dama koy jox wàccuwaayam jox ko cëram xam ni mu ngi leen fa nekkal nekkal bu am solo leen fa xeexal leen fa taxaw kon nag di ko seere seen kanam ci liggéey ba muy liggéey foofu seen tur di ko jox cër di ko jox wàccuwaayam di nuyu aussi le DG Alsane Diallo euh, muy suñu fierte ndax boo taxawee jël kàddu rek day mel ñëpp a ko jël nga ñaan yàlla yàlla yàlla defal tawféex kàtt na dëgëral la ba lépp lu nga bëgg a liggéey sa réew rawatina sa jeunesse nga def ko di nuyu tamit euh, euh, délégation monsieur waa délégation maire madame Thiam maire Daba maire Daba xam naa mu ngi ci téléphone bi maa leen nuyu bu baax nga jël nuyu bi tegal ma ko ci loxo docteur ak ci loxo xale yëpp liggéey ba muy door ñun ñëpp gis ne na nga ci taxawoon Thiam di ko nuyu di nuyul docteur bu baax santal ma ko nag ndax euh, dafa am lu am solo te nit bu ko defee danga nga koy wax fa nga ko war a waxe ndax këram gi tey xaw ma man maa ko tabax te ba ma koy démarrer boobu candidat loon maire mu ne man docteur du ma gis entrepreneur nekk njaareem di doomu njaareem may jël feneen entrepreneur te boobu candidat maire loon may candidat maire te kër gi presque mat na may ñu mat na cent million moo gis asi ay dara mu ooma jël lépp confirmé ko te xaalis boobu bokk na ci li ma campagne ba nekk maire kon su ma ñëwee fii mu def loolu day rafet ma wax kon tey bu nekkee candidat président candidat waa njaareem la man Diop wax na ko léegi de man nee naa la nit ku bon ku dëkk Jurbel moo ma gën a nit ku baax ku dëkk Dakar ak feneen loolu laa gëm ku ndax nit day fonk lu mu moom fonk lu mu dëkkal fonk lu mu nekkal parce que lépp loo nekk balaa keneen a ñëw ñoom ñoo fay njëkk ci ça la réalité kon tous les candidats yi nga xam dañu nekk fii Diourbel dem ci kaw yàlla na yàlla defal ndam daf leen taw feex te bu nu amee ndamit ñun te ndam la de te day ñam bu baax mos <laughs> laal ci ñeex mi boole ci <laughs> kon yàlla na ko yàlla def amiin kon loo taxoon ma taxaw foofu tuuti di nuyu euh, sama mag sama xarit jaaritu euh, Sarr dafa ma gisee ma dem dem rek ak ñoom jaaritu Faye jàpp naa ni moom mu ngi fi ñoom ay léppam lañu ak Silla di nuyu tamit doyen Dem su ma ko nuyoo dugg nuyu naa magu quartier bépp ak sage yi di ko teg ci loxoom mu taxal ma ko ci waa kër yëpp di nuyu la représentant de l'IA madame Diouf bu may ñëw mu ngi daanoo kàddoom di nuyu euh, le délégué de quartier yaa ngi fi nekk di liggéey liggéey bu am solo di la nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di la sant la gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey nduyu Seydou Seydou Sow mon ami su ma waroon démarrer rek nañ ñaan yàlla ñu jiitu yëpp yàlla dafa leen xamel àjjana xaw ma def nañ ko xaw ma démarrer ñu def nañ ndax bu may taxaw foofu di taxaw ci magam Omar Sow newu fi de waaye jëfam mu ngi man de dem naa Cheikh Ant am benn waay du ma tudd turam nee na man de bu dem na waay ñun la demal ba mu gaañoo lañ doog a xam ne dañuy xëy rek par fin du mois dafa wékk ay saaku ceeb diw ba mu gaañoo lañ doog a xam ne moom moo ko fa def mais moom xalaatul ki dem de moom boppam la xalaat bu weer dee fan lay jëlati ceeb kon ku mel noonu bu ngeen ko amee mu dëkk njaareem di doomu njaareem mais meeru dëkk bi rafet na ma jële kàddu ma wax lu rafet wax waxal nit lu rafet dara new ci newutu fi mais newutu fi mais yaa ngi fi nekk di rakkam kon ne yàlla na yàlla taxawu taw tawfeex li yàgg sa waajur bi ak ñi fi teew ñëpp ak ñëpp ñi jiitu woon yàlla nañu sunu borom xar àjjana di nduyu ma ay Aïssatou Ba mu représenté éleveurs fii mu ngi nii mu ngi nii toog di ko nuyu bu baax di nduyu tamit sukka sama xarit moom aussi ñoom ñu ngi nekk fee biir ville du ko def moom ak ñoom Jaw baax di nuyu ñoom Babacar kar gars yëpp ah nuyu naa leen di noonu ndax dafa naaj te moo bëggee nuyu yëpp du sot kon kenn ku nekk na jàpp ni fa mu toog. jox naa ko loxo sëñ Diop maa ngi lay nuyu bu baax jox naa ko loxo jox ko euh, biraayam jox ko léppam di ko sant di ko gërëm di nuyu nag samay sëriñ bay As maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay ndax lépp yéen la yéen a fi nekk lu ñu soxla ngeen taxawuñu suñuy ab tudd doom yéen la su nit génne àdduna yéen la su nit a takk soxna yéen la kon ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la nga wax ñun nuyu ñu sañu baay ba di la sant di la gërëm. ndax tàng na mais yaa ngi toog waaye nag di nuyu sëñ Mahfous Mbacké ndax tamit ci koñ bi la nekk dëkk Grand Diourbel di waajal événement bu am solo te dafay fay génn ci économie ak jeexatal rek mën na la lu bari ndax Diourbel premier événement la manqué waa événement yi bu doon bari rek da nga gis yu bari dina mën développé wu. parce que bu événement yi bare jigéen ñi salon de coiffure nañu liggéey tailleur nañu liggéey lépp dox économie boobu géej tamit ñam <laughs> kon économie boobu dafa am solo. kon tamit ñu ngi jël sëñ Mahfouz di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla yàlla na ko sunu borom dafa taw feex ndax bu euh, ndax gaa ngi jàng waa Grand Diourbel mais rawatina waa Grand Diourbel la en tout cas di ñëpp madame Ndoye maa leen di la sant la jox sa wàccuwaay ak gaa yëpp gis nga ko <laughs> kon ah xaadim voilà kon donc léegi xaadim kon léegi bu ma nuyoo xaadim kan alors euh, su ma nuyoo xaadim kan jël naa association bi yëpp kenn ku nekk ci trop ak santam donc wax na ko léegi sëñ Diop wax na ko léegi bañ koy démarré fii ay mbalit moo fi nekkoon mu mettoon lool muy gêné waa koñ te nit ki nag moom bu dara nekkul fenn rek beneen dafay nekk il fallait ñu créer fi dara alors ci biir lay ñëw ñu waxtaan ci man tamit ma gis ñu doon liggéey liggéey bu rafet chaque fois bu ma am ay mbalit ñoom ñu ñëw association jël si ay responsabilités def ko kon bu loolu nag mooy junj ni réew état mën na ci dara mais population ñoo ci ëpp solo sa l'action citoyenne ak volontariat lu mu amul dara amut nit lu mu bëgg a defar defar te askan bi bëgg ñu defar leen taxaw ñu pour defar duñ fi jóge te xam ne mairie mënul lépp ñu def évaluation xool fi ñu toll lan moo des lu deful ak lan lañu war a améliorer xam naa maa ngi ko doon wax xaadim su ko def ñu mën a progresser parce que loolu mooy dëggu kon ni ngeen amee xalaat ba xam ne fii war nañ ko defar te déjà bu saltee mën na dem ci hôpital bi ngeen di ko defar kon su ngeen defee lu mel ni damaa war a ñëw encourager leen ci féliciter leen ci xam ni lu ngeen ci toll nañ ko ànd ak yéen dina leen ci jàppale leneen accompagner parce que ñun euh, état mën na créer ay conditions rek mais richesse bi une population bi ñoom ñoo koy defar yi rek lañuy créer mais yene yene yene yene créer richesse kon nañ leen ci jàppale andal leen kon di wax nak wa Grand Diourbel na ngeen japp ci li yene ko mom waaw ndax tay ji jaw bass ma nga ville di defar lu mel ni yéen ngeen nak Grand Diourbel di ko def wa keur Cheikh diko def kon bu ngeen baye fi di dem fenen te baye seen yef it seen ngeen baye neexal yëfu jàmbur waxuma waxuma suko dara dama wax lu wax rek lu deug kon nag ku bëgg ku bëgg a dem ville nanga dem ville bu neexee nga ñam fii ñëwaat waaye na day leen ñam fii di ñam fee ndax fee xaw na xumb tuuti waaye nag leen tamit fii dina xumb léegi kon nag waa Grand Diourbel da leen ñam da leen bokk seen yëpp ndax man lu ma waxee dama koy ñame man Justine tout lu ma wax naan awma tiitukaay ci yenn côté yi parce que kenn ku nekk bu sikkim lakkandoo boxoñal sa sikkim ba pare balaa ngaa boxoñ sikkim jàmbur loolu mooy dëgg c'est ça la réalité des fois ñu da ngay wax dëgg ñu jël ko ni yow baax mère da nee bu kenn ñëw sa bos maa ni ñëw leen fii ba pare doog a dem feneen aw ma ci teg loolu lay dox man loolu lay dund yàlla rek fi nekk parce que nit ñi dañuy jaxase wax yi daal man dégg naa dégg li ma wax dama ko préciser mu leer voilà parce que bu ma waxee Touba sa kanam lu ne lañ ko waxee Diourbel sa kanam Touba sa kanam bu ngeen amee ñaar jël leen Touba sa kanam Diourbel sa kanam su ngeen amee benn bu leen jënd day jënd leen Touba Diourbel sa kanam quel est problème nit ñi bëgg maa yóbbu ci sëñ beeg lu kenn xamul ah mais Diourbel li nga wax la rek bon kon man maa ngi terminé pour xam ni njaarim daal kenn duñu ko defaral ñun ñoo koy defar suñu bopp c'est ça la réalité seen jóob noonu la rek nii ngeen def continuer leen ñun daal dinañ leen jàppale waa koñ bi nag maa leen di wax ngeen an ci association bi mhm. mine de rien bu gàtt la waaye lu ci biir dafa rëy kon na ngeen jàpp ci association bi ngeen dëgëral ko waa Ndaayaan waa Thiébo waa waa Ndeeseer waa Grand Diourbel waa waa ñi nekk ci Ngolomit lépp ci biir Grand Diourbel du noonu kon na ci ñëpp jàpp bu ngeen ci jàppee affaire na réussir band bi mën ngeen ko defar ba mu saf-saf ba mu rafet waaw terrain de football yi nekk Dakar ñi fay ko ay 30 000 40 000 mën na am ñu def ci ay synthétique def ay projecteur bu guddi ñoom Seydou mi bu nu wàccee naan seen yu ndox yow ñoo ngi wàcce biir bi fi loolu mën na nekk reesal ko fi am déet lu tax lu am Dakar mun fee am mën na fee am buñ naan dëkk bi doxut nit ñee doxut waaye bu nit ñu doxee mu dox bu nu jëloon fii yóbbu ñu États-Unis léegi indi waa États-Unis leen fii tuuti gars yi raw ñu loolu rek moo fi nekk ne leen gëm seen bopp téye seen bopp bande bi bu ngeen ko defarul nit ñi dañu ko jël def fi ay mbalit voilà kon nag man fu ma wàccu sama kàddu ni maa ñun ñu ngi ci moo tax tey jii dama am bu ma xëyoon di lijjanti moo tax ma naaje maa ngi jégalu bu baax waaye maa fa waroon jiitu waaye boo xëyee dëkk bi sant ñang ak affaire yi neexul il faut nga lijjanti weccit doogu ñëw te des fois dëkk bi des fois day naqari. moo tax loolu rek moo moo tax amee ndaw ma ko xaar bu ma paree rek maa ngi ñëw léegi fekk ma jóge banque ba am yu ma fa lijjanti mu sotti ma puus doogu ñëw fii kon loolu rek la waaye maa fa waroon a jiitu kon nag euh, xaadim maa ngi yéenay bokk mbir mi. Deng, nga na ñepp dugg nak bu ñu yam ci discours suñu paré né la accompagner suñu leen sétane yeen rek du ngeen dem c'est pas possible il faut que ñepp japp ci ba kenn nak bañ ni man mako mom l'association après moo ko ko bok kenn mom ko association bi dañuy dé bako fi ñeneen doon war voilà le problème du non madame doy kon nak Grand jurbel warna gëna mëna développer nu raw ni la ca dess nak bu ñu ànd ak yéen la ci biir yëpp dégg nañ ko porte de santé yeeg programme yooyu yëpp yëpp nañ ci ànd accompagner leen ba mu jeex tàkk ma wax naa ko keroog porte de santé foo ngeen ko doon waxee yéen la woon ah ah lépp na ngeen ñëw su nax bi leeree rek mu ñu toogee rek ñu xaatim ko dóor mu daanu kon nag mu ngi noonu naaj na sonn nañu euh, beñey bi dox na waaye nañ ci ñam tuuti naat continuer déglu professeur man nag bu bu doon lii bu ko du laa dem fiy toog yen ndax yow li ngay wax lu am solo la dégg nga na ko xale yi dégg gis nga àdduna wax nga lu am solo man mii di wax ak yéen wax nga ko léegi saa wax na ko man maa fi dàqoon animé ay bande musique laa yoroon di animé di jaay kaset fii ci marché maa ngi mot jaw ba jékki-jékki ma dem tijji fii xandaan wax nga ko yéen booy bari ay black jamon sax ay 136 aslem fi yëpp la gars yi doon baale loola fi am mooy dëgg ñu jóge fa moom tëj boutique di jaay boutique jóge ci boutique ba di jaay soble dem jënd ay t-shirt di jaay sapeur pompier di kurkuri rek di kurkuri rek ba jékki-jékki ndekete xaw ma ne entrepreneur ci la bagage yi nekk ma jékki-jékki dugg ci entrepreneur yàlla defal ma may liggéey di liggéey di liggéey ba am ay chiffre d'affaires ay milliards kon dans la vie bu leen xeeb dara booy bu jël 7 million fois 10 dix millions booy bu dem États-Unis 7 million fois du 70 nga leb banque 30 million du nekk 100 million ñu créé benn société loolu mën cee liggéey mën cee ñam ah jox ko passeur yi nga xam ne ku ci dëppe bu yow yaay perte loo quel la problème li am solo mooy nit ki bu gëmee boppam gëm ni àdduna li xëy dara mënta xëy sotti boo xëyee nangoo góor góor li ñuy jaay café ñuy def nangam yàlla mën a def sutura du ma la ca des nag yaa ci dugg man du ma nekk fii di défendre politique état ou di sànni état man daal damaa jàpp ni man mii man ci rien laa déparé xëyuma fekk lépp damaa xëy rek di reyanteel sama bopp di taf taf taf taf taf beeg si fii te keneen ku nekk mën naa jàpp exemple ci man waaw bu nangoo góorgóorlu rek nangoo teel a yeewu nag cinq heures du matin nga yeewu julli dem liggéey balaa ngaa tëdd mu guddi suñ ko defee yàlla mën na def yàlla in taw feex en tout cas ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ci temps bi ak yitte yi nga xam am ngeen ko baax a baax te ngeen jàpp ci association bi may sa moom yaa ngi ci biir nañ ci jàpp yaa ngi ci biir ñun on est preneur même bu fekkee ci dans la cadre dans le cadre du PACASEN du ma sori ci biir xaadim ma dugg ci biir mënul waxi politique bu ñu paree nañ toog réunion bu mu laajee sax 50 millions ñun on est très près kii xam na ne xaalis bi am na fi bërk de mun naa ma jaayal xaalis bi xaw ma foo ko dugal jaayal xaalis bi yaa ngi denc milliard yaa ngi jël un milliard et quelque ba tey mënoo koo dépensé mais waxtaan leen bu banee dugg ñu dugal ko fi ne en tout cas na nekk njëriñu askan wi ñëpp gis seen bopp ñun daal on est prêt Khadim on est prêt à accompagner te bu ñu jàppoon ne ay nit ñu tappalekat ngeen duñ ci dugg de ba mu fay ñëw booy booy jóob mi laa fekkoon ak waa ji yoroon sikkim bu gudd bi xaw ma anamu ah Assane moo yore sikkim bi te nag li ma ci jaaxal booy yëpp dañoo jàpp forme de <laughs> noonu nag la ñu dëgëree am fulla am fayda gi nga sëñ Diop wax ju am fulla jum wax fi léegi kon nag dèjà nag maa maa ngi war ci foofu ndax maire bu neex ngeen am maa dàq suba la tabaski <laughs> kon jërëjëf